بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam yéenay topp seen daara ji te seen mbokk seen xarit Njaay Kayaar dinañ ko defal ci dibeer bu jot ci waxtu wi tey nag di dibeer di fukki fan ak benn ci weer bi nga xam ni mooy jumaada saniya muy maamu koor ci atum dal atum junne ñeent téeméer ak ak ñeent ci gàddaay rasulullahi sallallahu alayhi wa mu tombé ñaar fukk fan ak ben ci mois d'avril 2013 di siar bax sama euh, ndongo yi nga xamni ñoom laa di len nuyu di len tatagal ñomit di bég ci ñom ci njàng mi nga xamni ni faral nañ ci lool ci waxtu wu nek kon nak xamna ni def moy dañuy ñew ci bind ba weesu woon ñu seen ndax mokal ngeen ko wala mokalu len ko suñ ko mokkalee ñu tambali bindu tay bu ngeen ko mokkalul nak ah, su boba ñu jëm ko rek ba ben yoon ndax xam ngeen ni lek bala ngay lekkaat danga war a bàyyi ba mu rees kon nag reesu regg lekk mooy maanaam mokkalu bind ci ndongo kon ñu ñëw ci bindu bi jàlloon léegi jàngoon ngeen ñeenti xaraf yi moom nag laa bëgg tey ngeen baamul ma ko ñu seet kon xaraf yi lu mu doon za za aywa bu baa bii nag bii zeyn bu baa zeyn bi siin siin ay wa kon mu kon daa raa sayin siin kon da ngeen mokk na ngeen ko ndax mën noo dellu ginnaaw tàmbalee fii ci kaw bëgg si fii ci bi ngeen mujjee jàng yu seet bii lan la bi baaw bi taaw bi saaw bi jiimu jiimu bi xaaw biyun bi daa bi nak za bi ra bi z, bi chi kon nag ngeen ko kon dafa ni ci bindu tay kon ñu def ni def ni def bu bii ak bii ñoo nuroo bii nag wuute naag yii waaye bii lan la woon siin kon bii lan la war a doon siin benn ñoo yem léegi damay ñëw nag def ci nii ñetti tomb kon su boobaa mel na ni bii ak bii lan moo leen wóotale ñetti tomb yi ci kaw bii moo nekk gis nga shiin xam nga bii siin la woon siin bii nag shiin shiin day day tooy ndax li ñuy wax shiin su tooy ñett tomb yee tax comme daa tooy nag kon dina wuuteeg bi wow moo tax bi wow nga ne woon siin bi tooy nag nga ni gis nga shiin bii mooy soot soot xaraf yu naqaree jàng na ngay jàng tey soot soot mooy bii kon bi lu mu don batay sa ndax ñom ñaar ñu nuro leena ngir ñu wote ni ngay def fi tomb muy so do waaw do soot doot bi di to to ngay ñetti harafi yeb so soo ño bokku ñu leen di waxe ci eh, làmmiñ yu leen di wax waye tuddu bi rek mo wute waxtu wu nek do ko waxe ci bir gémmiñ gi doo ko waxee ci put gi ci cet làmmiñ ñu koy waxee mu génn sa soog bëñ yi comme so gis nga so gis nga so ci làmmiñ weeg bëñ yi rek ngelaw li génn soot gis nga soot muy bii bu dee bii nga ne doot gis nga doot ñoo bokk ñu leen waxee li wuta rek mooy xaraf bi waaye eh, cër bi leen wax benn la muy làmmiñ wi fës ci bëñ yi ngelaw li génn doot gis nga moom waaye daat bi nag day mel da ngay xaw a dugal da nga koy xaw a dugal mu dugg soit bi day mel lu xaw a génn soit bi mel luy dugg gis nga soit soit gis nga boo boo defoon ni sa loxo boo nee soit dina am as ngelaw lu génn laal sa loxo waaye bii boo nee doot daanaka day nekk day mel da nga koy keppaale mu mel nga koy wannaale doot gis nga day mel da koy wannaale doot doot gis nga bokkul ak soit gis nga soit day génn mais doot day mel da nga koy wannaale ak to to gis nga bii nag moom day maanaam du génn du dugg day yem fi mu yem do to gis nga am na ay picc yoo xam ni bu ñuy sab dañuy faral def loolu naa to to to comme ça comme xeet boobu la to to to to bokkul ak taa gis nga taa mooy bii waaye to gis nga to to kon gis nga bii nag moom moo ci gën a neex ci yow xam naa ni muy chiin moom da ngay mel kuy woo nit di ko ci ko rek gis nga comme ku naa chi rek nga ni chiin chiin صاد ضاد طاء شين صاد ضاد طاء gis nga kon boo xoolee <clears throat> ñetti xaraf yi ñeenti xaraf yi nee naa la yaa ngi fas yéene jàng ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett mu nekk 28 soo ko xoolee yaa ngi ci 16 xaraf fi mu ne nii mooy fukk ak juróom-benn. kon li muy tekki weesu na xaaj fii la xaaj woon ñaar yi ñoo ko xaaj muy boo xoolee ñaar yi boo limee fii ba si fii 14 lay doon mu nekk euh, fukk ak ñeent léegi nag ñaar yi dolliwaat ci mu nekk 16 muy fukk ak juróom-benn kon day mel ni xaraf yi nga waroon jàng léegi xaaj na ndax 28 xaraf nga war a jàng mu ñaar fukk juróom-ñett te léegi yaa ngi ci 16 kon li muy tekki moom xaaj na weesu na ko sax kon kon su boobaa day mel ni. dina jar nak legi njàngale mi ñuy bañ ci yaman ci xaraf yi ni yamoon ndax fi ne yaa ngi bëgg jang xaraf yu bari kon day laaj yeen saa ñu ñu delluwaat ginaaw day laaj xaraf yi lu mu doon wala bi lan la bi lan la ndax loolu mooy tax doo ko fàtte ba nopp nga koy gën a xam bu ëgsee ci maas yi nga xam ne xaraf bu ci nekk ni ni la ni laa ko jànge woon ca ban commencé gut moo tax kon faaw ñu baamul lay yi rek ba ci kanam ndax comme dafa nekk xaraf yu jafeñ yoo xam ni moom daanaka boo ko mënul doo man ma maxaarij xuruf kon gis nga soit bi mo nekk ci siraatal mustaqim toi bi ba tey moo nekk ci siraatal mustaqim daat bi moo nekk ci mardu bi wala wala daalina gis nga daat bi moo ci nekk moo tax doo wax wala daalina ndax kon daa bi ngay jàng doo wax ma ma mardu kon daa bi ngay jàng kon mardu gis nga doo doo gis nga doo kon do bi nga jàng wala doolina gis nga kon do bi nga jàng kon gis nga daat bi boo ko mënul doo mën a jàng wala daalina doo mën a jàng mardu bi bii soit bii soo ko mënul doo mën a jàng suraatu sura gis nga suraatal mustaqim gis nga doo ni siraata gis nga boo nee sirek bii nga wax boo nee siraatal nga wax boo nee siraata bii nga wax gis nga ni mu wutee boo nee ziraata bii nga wax kon bii nga yax ni gis nga soot suraatal gis nga sura gis nga sira bii nag boo ñëwee ba tey trois taw bi ba tey ba ci sirata rek boo mënul taw bi doo mën sirata mustaqim kon sirato gis nga to siratol gis nga siratol booba bon kon day mel ni ñetti xaraf yi bokk na ci yi nga xam ni war nga ko waggar waggar mooy bàyyi ci xel bu baax a baax sàmm ko ndax lu ko mooy doo mën a jàng mardo bi doo a jàng sirat kon nag bii mooy shiin shiin wute naag siin bi mooy siin bii mooy shiin sọt nhỉ sọt đọt tọ shin sọt đọt tọ shin sọt đọt tọ kon bu ñu ñëwee nag ci baatu siin maanaam siin wala sa lu jëm ci saa rek gis nga bii saa nga waxoon bii waxoon daa bii nga wax za kon zeyil bii nga wax siin maanaam muy saara dama koy waxee ci xar ci masque yi bii nga wax chiin bii nga wax soit kon boo xoolee bii waxoon naa ne la soo koy jàng ngelaw mooy génn sa gémmiñ te da koy jaar rek sa làmmiñ yi muy sa gis nga sa gis nga moom noonu la woon bi day mel da ngay saa ngay wax waaye day mel da ngay waxaale da la gis nga mooy alladi di gis nga la di danga day mel ni da ngay wax fekk na saa ngay wax alladi na gis nga za da moom day mel da ngay xaw a keppaale salaamin tuuti bii zeyin da ngay da ngay yolamal sa gémmañ ba noppi xaw koo dëgëratul ze gis nga ze zeyin gis nga muy ze bii bii mom moom mom moom moo ci gën a yomb ci wax moo tax boo ko mënul yëpp fii ngay dellusiwaat boo ñëwee fi muy shiin gis nga shiin gis nga moo ko ndax lii moo ko wutee shiin bi soot gis nga soot gis nga yëpp boo ko mënul fii ngay dellu si waat moo tax soot gis nga moom kon yooyu moo ci gën a bari su ñëwee nag ci moom benn la ci doon bii la gën a nuróol ci waxta bokku nag ndax kii day dëgër bii moom gis nga ni nga koy ni nga koy waxee comme daat daat gis nga daat daat gis nga kon bokkul ak doot gis nga dar bokul ak do bi moy bo indi Dawuda, bi ngeen indi daa gis nga daawuda araf bi ngeen indi motax nga ne da, da, da, gis nga da da da daawuda da daawuda gis nga misal bi hmm? da, da, hmm, da, motax bo mo xona ak sank boy jang maghdubi bi ngeen do du do du di gis nga wala wala doo gis nga do wala daalin do wala do gis nga do wala daalina moo tax bii moom moom am na boroom xam-xam bu mag euh, jàmbaare lool ci xam-xam mos nañu waxtaan mu ni ñoom bi ñu jàngee ba dem gànnaar di jàngi naar bi leen doon jàngal bi mu leen jàngal maxaarijul xuruf di leen ko jàngalaat nee na bi ñu agsi ci xarafu daat bi xaw naa am ak ñoom weer boo xam ne am nañ ko ba mu yàgg naar bi ne dama yàgg dama jàpp ni buñ ci yàggee day dem bu mujj li ngeen war a jàng lu ngeen ko kon léegi ni ngeen ko wax leen ko noonu ngeen dem kon day wane rek xaraf xaraf yi doo xaraf yoo da ngay ñëw rek mën koo wax nii dem faw nga sonn ci loolu dooru ko mën a xam maxaarijul xuruuf léegi nag sëñ bi daan wax naan dinaan ko jàngal kenn ku nekk ni ko war a xame waaye nag am na loo xam ne mbirum suñu borom lay doon ndax làmmañ yi bu jëmul am na ñoo xam seen làmmañ ko ni ñuy waxee am na xaraf yoom duñ ko mën a wax mukk kooku mbirum suñu borom la nag ko waaye du pexem nit kon nag léegi def nañu ko jàngal ni ñu ko xamee ni ni ko war a jàng rek waaye nag am na ci nu yàlla bi nu la yàlla bindee ci wax noo xam ni doo ko mën a waxee noona waaye lu ci am solo rek mooy nga xàmmee xaraf yi ba fu ñu ko jàngee rek nga xam ni lii nangam la loolu rek moo ci am solo kon loolu am na ci loo xam dañ koy bàyyi ci loxol suñu borom kon ñu baamu ko shiin soot doot too aywa too léegi wax leen ma dégg shiin bu baax shiin aha saad aywa saad aywa saad bi daal aywa daal bi taa waaw nag man ngeen ko ni ngeen ko waxee noonu la kon yéen mel na ni di ngeen mën a jàng siraatal mustaqim di ngeen mën a jàng maxduubi wala wala daalina ndax xaraf yi ni ñu ko bëgg ko waxee noonu ngeen ko waxee ñu baamwaat ko bu baax bi saad bii bii ay waay noonu la yombe noonu la yombe ci boo ko mënee léegi nag comme yàlla dogal na ñeenti xaraf yi ngeen jàng tey te boo xoolee bari na xaraf yu ngeen jàng damaa bëgg nag tey bindub tey bi ñu bañ a yem ci bindub tey bi rek da damay damay damay baamu nag xaraf yi du ma ko baamul sama bopp waaye xaraf fu ñu damay teg laaj la ni la lii nu ngi koy jàngani nàngam ma ne bii ñu ngi koy jàngani nàngam léegi xaraf bi nu ngi koy jàngee Ah. maanaam boo koy jàng ngelaw mooy génn wala nokk ci put gi nga koy waxee. ngelaw ngelaw mooy génn kon nag gis nga mooy xaa gis nga. Ah. mooy xaa wuñ nga léegi bii nag. xaa ah. boo koy jàng nokk foo koy waxee. ci put gi da ngay mel kuy. kuy xaddama ko. muy xa boo ko mënee ci ngay mën a wax xaadim bii boo ko mënee ci ngay mën a wax xaamidun wala mahmudun wala muhammadu gis nga bii nag. ta kon nag moom moom daanaka moom moom yomb yomb na yom bon moom moom yomb na jafewut waaye bii nag moom ci gaa yi la bii mooy. saa saa boo koy wax. waaw kay soo koy wax luy génn. ngelaw moom nag bokk na ci gën a jafeñ de ndax wanu naa ne xott naa fi ay këyit def sama sama tenk wax mu naaw wut naa suuf def kon day wan ni pour nga mën ko soo nee ba daa ba ba wàcc na nga wut suuf def ko sa tenk soo ko waxee suuf si naaw rek xamal ni nga waxee noonu la wala nga nga nga nga wut ay këyit dagg ko wax ko nu muy fa mooy bii moom nag bokk na ci gën a jafeñ waaye bii dañ ciy ñëwaat bii lan la woon jiim ak lan wala jiim de ñaar xeeti njàngin la jiim jiim jiim ak jiim waaw kay li tax nga ni jiim soo doon wax a'uuzu billahi mina sheytaani rajiim gis nga booba jiim nga jëfandikoo fekk fekkee nanga koo jàngee nag jiim nga ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim yow nag yaay seet nag bu la ci dàqal waaye ñaar yëpp def ko jim wala jim yëpp baax na kon day mel da ngay waxaale maanaam moom bii muy jim bu dee jim nag moom day day day dëgër rek yam fa léegi nag bu ñëwee ci xaraf bii moom noo koy jàngee saal waaw xam nga dafa xaw a nuroog bii waaye tomb yi leen wute moom nag ni mu wuteeg moom ci tomb du tee boo koy jàng da ngay sàccaale ci bii dafa mel ñoom ñaar moom ngay boole jàngandoo ko muy za gis nga boo nee za gis nga xam nga za day mel da ngay waxaale daa su fekk na saa ngay wax moo tax kon moom laa la indi woon ci baatu allazi gis nga xam nga néew ma allazina allazina gis nga day mel da ngay waxaale daa bi tuuti boole kook saa bi te fekk na saa ngay wax muy allazina wala allazi kon daa gis nga daa daa gis nga day mel da ngay waxaale daa fekk saa ngay wax daa gis nga daa mooy bii léegi boo ñëwee ci bii muy sa yin gis nga moom moom benn xeetu njàngale day day day day dëgër sa yin maanaam sa yin moom benn xeetu njàng la bii nag eh, jàng ah, ma jàngagu leen ko waaye da nga gis ci alxames ñu sootu suxuruf su zuxuruf mooy bii zu gis nga zu wala zë wala zi waaw comme wala nga ni zayyan wala wala zeyna li ñuy wax zeyna zeyna zeyna gis nga comme mooy baat yi maanaam kii zeyin bi ngay jëfandikoo mooy zeyin moo tax nga naa ze zi zu az xeet yooyu kon zeyin bii nag moom yomb na mooy siin rek moom moo gën a wow nga ni siin rek bii boo ñëwee da ngay daal di wax nag tooyal ko bu baax gis nga gis nga moom bii siin la bii Chine man da ngay mel ni kuy kii maanaam booy xool ngelaw day jaar say say say bëñ di génn yi dem moom moom day dem rek muy noo koy waxee rek ngelaw day génn gis nga xam nga bokkul ak bi nga xam ne boo nee moom day gàtt lu gàtt lay nga xam ne ngelaw la génn yem fa bii rek moom ngelaw day wéy di dem Chine gis nga gis nga Chine bii nag nga ni soot gis nga bii nag moom day mel ni du kawee du xumbu doon daal day nekk daal lu simple loo xam ne nga ni. ay gis nga gis nga mu ngoog. soot soot yooyu nag boo koy bëggee xam fu da ngay xool ki la koy wax ni muy def gémmañ ci noonu lañ noonu noonu noonu nga soot gis nga soot moom da ngay kii say tuñ rek maanaam waaye làmmiñ ko rek moo koy wax sës ci bëñ yi ngelaw génn tuuti rek maanaam du du bari nga ni soot bii nag day mel da nga koy wan moom day mel da ngay wan xaraf yi nga ni. gis nga boo koy fi ne boo koy wax da ngay yëg fii. doo faaw nga yëg fii ni muy yëngoo da ngay yëg da ngay da nga koy da nga koy yëg boo koy wax moom da ngay yëg fii mais bu dee bu dee yeneen yi ñaare boo koy wax doo yëg fii soot nga saat boo koy wax soot fii moom daanaka doo ko yëg baax fii rek nga koy yëgee waaye bii moom boo koy wax da ngay yëg fii doot gis nga doot waaw gis nga léegi bii mooy hmm, hmm? to to waaw to to rek ngay wax moom moo mu gàtt mu bañ a gudd jarul muy gudd nag mii soo ko guddalee doo gaaw mën a wax to to gis nga waaw muy too gis nga boo nee to muy too too too moom toujours boo koy wax da nga koy xaw a rek door ko door a dem too gis nga too muy too muy bii bii nag moom day neexal wax xaraf yii mu lay wax nii kon bu dee gis nga bii تي بورنجانغ من شر ولا شرن كم شرن كم فمن يعمل ولا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أك فمن يعمل مثقال ذرة شر قسنا شرن ش موي بي ش موي شين كينك صوت بيوخ نالكو نمالك وخن سانك موي سراطة سراطة سراطة سراطة قسنا سراطة سراطة موي س kii maxdubi wala doolin wala doolin muy do gii to ba tey di ñëwaat siraat rek to gis nga to siraat to doone tax boo ne tax bii ngay to moo tax too moo tax too gis nga moom nga kon shiin soot doot too shiin soot doot too gis nga boo xoolee ni may waxee sax da nga xamni ni soppi na kaddu damay tambali fi wax nga deg suma tambali fi di wax da nga xamni ni yi bu mu ci agsee ni ma don waxe fi yep ko fi nga mo ne alif yi nga ni mel ba ta fa jim ha kha dal ba ra sayin fin shin. gis nga kaddu gi sopp na sot gis nga Dot. waaw day mel ni fii ngay gën a nga koy gën a respecté lu ko mooy dinaa delloo nga yàq ko fii moom loo gaaw gaaw boo ak fii fii rek di nga tey parce que boo yàkkamtee doo ko man Chine bii moo ci xaw a gën a xumb sax Chine waaye yii moom du xumb soot gis nga soot doot too gis nga dafay wuteeg daa raa sëyin siin comme noonu waaye boo ñëwee fi rek faaw nga tepp teppal Chine bii rekk ci xumb nga ni soot gis nga shiin gis nga ni mu xumbe waaye soot gis nga ni mu yemee doot too moo tax yii moom boo xisee ba man rek daanaka xaraf yi ci toppaat di ñëwaat eh, yii moo ci gën a jafeñ moom bii ak bii ak bii rawatina bii waaye yii yëpp xañ na xaw naa jafeñ lu mel ni bii waaye bu jàllee rek booy xool soo ci góorgóoroo dana yomb bii moom li tax muy xaw a jafeñ tuuti mooy ni ngay mën a contrôler ba ngelaw da nga génn sa gémmañ mooy mbir mi toujours doog si fii boo koy wax fii lii du ci bokk lii rek lay doon gémmañ gi rek ngelaw génn muy gis nga xaa boo neex rek dangay ngay daal daanu boo yëg boo yëg fii rek daan daanu ba moo tax boo ko yeex boo ko yeex doo yëg fii fii rek nga yeexe moom yëg fii fii boo ko yeex yëg fii daanu nga toujours fii rek ngay yëg bii boo koy wax fii ngay yëg do yek fi ngam ni nu wutee ñom ñaar ñom ñaar dañoo nuroo sofaanoo tey day nee gis nga ha ha bi nga ni gis nga da wute moo motax bi boo ko fi nga yek bi boo ko do yek fi motax ha gis nga motax ha xaa gis nga bi nak harafu neex la woon boko mané day neexal sam jang ndax ba am ñoo ñoom mën muhammadu muhammadu lañuy wax wala muhammadu li ka waral nak moy la no mon lu moo tax boo ci ngay mana rahman batay am mën no rahman da neex rahman wala rahman li tax mooy danoo mënul xaraf yi gis nga Bismillahirrahmanirrahim. rah gis nga bismillahir rahmanir rahim gis nga harf yi ngay man door a mën a jàng mënul do mëna muhammad do mëna wax mahmud do mëna wax habidun do mëna waxit rahman wala rahim wala yu mel noonu bii it soo ko mënul doo mën a xaadim waaw ndax gis nga xaadim xaadim moo tax boo mënul bii fii bii ngay wax bii it boo ko mënul beneen xaraf ngay waxaat hmm? kon léegi moo tax jar naa moom bii moom bu jara wa garab bu jara bàyyi xel la ndax daanaka barewaana ku yàq faatixa la ëpp ci bii ngay tàmbalee ndax bo nee bismillahir rahmani, gis nga rahmani boko ko da nga yàq bo nee rahmani da nga yàq bo nee rahmani da nga yàq rah rek nga mëna wax kon boko mënul sa ndal mi nag fatiha rek bismillahir rahmani rahim ja ngay jëkk wax ja ngay yàqe bii nag yii moom boo mënul do mëna jang qulun rabbi nasi wala qulun rabbi falaq baax ba boo nee chiin shin xulon ba bi maliki nasi ilahi nasi min charri gis nga chaq min charri boo ko mënul doo mën a jàng naaj doo mën a jàng falaq bii boo ko mënul ak bii ak bii doo mën a jàng faatiha ndax siraataa nga ca ba noppi magdoobee nga ca wala daali na nga ca kon ñett bii bii boo ko mënul doo mën a jàng faatiha moom bii ñoo yam léegi nag euh, yii moom daanaka moom du jar kii ndax moom daanaka faaw nga mën ko maanaam du du jar ngay sonn daanaka ni nga koy waaye bii daal ak bii ak bii ak yii nii waaw bii moom ba tey moom di ko man ndax dafay dëgër moo tax zëyin moom yomb na eh, léegi nag kon damay baamu nag léegi man su ma baamu xaraf yi ba jeexal bu ni nga dégg ni ma ko waxee su noppee man ma ñëwaat nag benn par benn ma leen di laaj ñu koy jànge ba noppi nag ma ñëwaat ci bindu tey bi ndax xam naa dafa mel ni li defe ñu goow mooy wàcc bareetul léegi alif alif ba ba ta jim jim wala jim jim waaw xa xa xa xa daal daal ra ra sëyin sëyin siin siin shin shin soot soot doot doot too too da nag ngeen baal ma ba fii ma laaj leen nag benn ak benn bii lu mu doon alif uh-huh. ba waaw loolu moom wóor na ma léegi nag damaa bëgg nag ma jabase liy wolof di wax jabase ndax tam faaw njàngale mi dañ ci dugal ay baati wolof yoo xam ni mooy tax ngeen xam li ñuy wax maanaam jabase mooy nga jaxase fii jaxase fii boole fii kon léegi tey dama koy jabase nag jabase mooy tof tof toftaloowul ni mu naan toloo damay jukki fii génn fee dugaat fee li neex jaxase mi laa fi rek mooy jabase léegi biirum doon. waaw ah. ndax foo koy waxee ci ngelaw léegi bii doon. waaw ah. bilum doon saa bilum doon raa bilum doon siin bilum doon jiim bilum doon saa bilum doon daal bilum doon alif bilum doon saa saa bilum doon shiin bilum doon taa bilum doon saa daal daal aywa mokkal ngeen ko ndax fii ne nii mu tegaloo ni du jaay ne fu ngeen ko fekk nii lay tegaloo loolu moo tax nag buñ koy jaxasee mooy tax ngeen koy xam fu ngeen ko fekk da ngeen xam ne xaraf yi mooy xaraf bi loolu lañ ci jublu kon nag léegi dinaa bàyyi ba eh, li ngeen jàng tey ngeen ñetti yoon ñuy door a jeexal bi lu mu doon aywa. Chine. soor. doot. too. aywa. Chine. Mhm. Mhm. Mhm. wax dëgg yàlla mën naa wax ni mokkal ngeen kon muy Chine soor doot. to su ma baamoo fii nag jeexal mu nekk benn baamu muy alif ba ta tha jim ha xa daal la ra feyin fiin shin soot doot to shin soot doot to shin soot doot to kon nag lii mooy seen bindu tey jàng nag waggar rek lay laaj ak sàmm di nafar di ci boole am ci himma muy yitte ju rëy rëy ndax yàlla mooy xamale jaam bi jubluwul xam yàlla rek mooy kii xamale mënut a xamal boppam yàlla mooy xamale wa allama al insaana maa lam ya'lam kon nag bu ko defee boo amee pastéef am ci yitte rek yàlla miy xamal doomu aadama wala xamal kosoob mën na laa xamal ba nga fer ji nga jóge fa ba jàng ba am xam-xam mën nga koo topp ba ba wàccab kaamil te yàlla mën na lu ne loolu ñu ngi leen ko ñaanal di ñaanal ci ci barkeb sa nuquri uka falaatan saa yàlla moo ne yonent bi dinaa la jàngal te doo fàtte kon nag barkeb wax jooju ñu ngi ko ñu ngi leen koy ñaanal mu am ci yéen ba ngeen man ba mën taxaw fii di fi jàngal ñeneen ñu dul yéen kon nag euh, lii mooy seen émission daara ji euh, di leen sant bu baax di leen gërëm topp ñi nga xam ne yéen ngi ci topp ak ñeneen ñi nga xam ne sax xañ na ñoom ñu ngi ci jël bindu ci waxtu wu nekk dina woo di ko rafetlu di ci wax ay xalaat yu rafet ñu ngi leen sant di leen gërëm kon seen mbokk Serigne Khadim Ndiaye Kayar di leen jox incha allah ba beneen diweet wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim.